رحمة ربك بمجنون mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp gannaaw bañ leen nuyoo sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu amal leen leen plateau bu am am solo lépp di dellu ci alquranul karim xam ngeen ne concours boobu nga xam ne C3S mi ngi koy organiser di yaatal mbindum alquran ànd ceek sëriñu daare yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ak ci gox yi fasantikoo yi ci lañ leen dalalee ci sama côté euh, gauche muy Serigne Moustapha Diop Ndar di borom xam-xam ngeen xam ko ci daara alxuraan ci jàngale ak ak ak jàng itam xam alxuraan lool di borom yi xam-xam nangu cee gëstu itam ak soxna si nga xam ne mooy soxna maam Awa Dem ngeen xam ko muy yëngatu ci daara alxuraan jeena ca Poroxaan te Serigne Mountakha Mbacké di ko piloté tey yàgg ca lool yaakaar naa su ma juumul 2005 ba tey mi ngi ci daara kon euh, mi ngi ci daara waaye tamit actrice la ci biir daara. Euh, gannaaw laataa loolu damay jox sëñ Moustapha sëñ Moustapha gannaaw bu ñu la nuyoo ba pare di la dalal di la ziar. aoudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka euh, ngi lay delloo nuyo di nuyoo mboolem ko xam ne yaa ngi topp euh, waxtaan bi di am di nuyu bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi te nekk ci kër gi nga xam ne mooy C3S. soxna maam Awa Deme yow ñu ngi lay dalal di la ziar. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent ngi am mbég ci tamit dëgg yàlla di teew ci liggéey bu rafet bi nga xam ne borom daara moo ci woo borom daara yi ngir taxawoo ko alxuraan ji ci wàllu mbind mi muy El Hadj Serigne ak Serigne Fallou mi nga xam ne moom la teg ci loxoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko seq ànd ak ceeg moom Serigne Dame itam bokku ci. Euh, kon loolu moo ñu fi tax a teew tey jii am ci mbégte lool tamit fekk ci fi ñoo xam ne nii sunuy sëriñ daara lañ comme ni ñu ko waxee sëñ Moustapha Diom Ndar mi ngi ni toog commission scientifique bi ñu nga ci biir. nekk ci liggéey ba euh, ci njiitu sëriñ Xaadim Ndiaye ak mboolem borom xam-xam yi nekk ci biir xam naa dinañ ci dellu siwaat ñu lay nuyu tamit yow sëñ Omar di nuyu tamit sëñ Moutala mi nga xam ne heure bu nekk mi ngi ànd ak ñun di génne li nga xam ne moom lañuy ñuy liggéey. jërëjëf soxna maam Awa ci kàddu yu am solo yooyu damay tàmbale ci sëriñ Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop yaatal mbindum alxuraan mi ngi jël auteur su ma ne mi ngi jël auteur mooy mi ngi seqi jéego fi mu woon di dox jëm ca kanam ren mooy ñetteelu at ñu organiser concours bi boo ñu doon defal rappel ci la ko jiitu muy 2018 2019 ba ci ren ji tey ci juróom-benn fan ci weeru février mooy dépouillement bu njëkk bi nga xam ne mooy national bi ana ban jàngat nga ci am. Euh, jërëjëf sëñ Omar euh, ci tontu loolu damay wax ne euh, mbindum alxuraan yaatal mbindum alxuraan bi muy commencé dafa mel ne at mu jëkkam da doon xamle boppam. ndax li tax loolu mooy da di yëngu goo xam ne ci alxuraan mësee si koo xam fenn mun ñi xamuñu ko ci réewi lislaam yi ndax concours boo xam ne ki ciy bokk day mokkal alxuraan man koo bind sàmmoonteeg rasbul osmani ba noppi di ko bind ci mbindum réew mi mu nekk ñetti charte yooyu loolu xameesul concours bu mel noonu fuñ ko mas a def ndax li ñu xam ci concours alxuraan yi mooy concours tajwid quran xam nañ ko Euh, léeg sax nga dégg concours ci rasmu waaye concours bii moom ki ki ciy bokk day mokkal alquran man koo bind rasmu osmani ba noppi di ko bind ci mbindum réewam euh, loolu nag soo soo ci organiser concours euh, lu amagul exemple nga bëgg cee woote dafa mel li jiitu mooy kon nga xamal nit ñi lu doon ba noppi moo tax at mu njëkk mi concours macha allah nit ñi wuy si nañu participer nañu waaye nag dafa mel que ne dañu leen doon xamal concours bi lan la waaw tàmbalee ko ci ana nuñ koy woo woote moom concours bu mel noonu ak it ñi ci participer nan lañ leen di recevoir ak it ñi ci participer nañ lañ leen di xayma ba mën a euh, noter seen i euh, xam-xam ba mën leen a jox ay ay ay ay prix kooku yëpp ab liggéey la boo xam ne ci première année bi lañ ko doon def muy liggéey boo xam ne euh, expérience la woon ñaareelu at bi nag alhamdulilah nit ñi xam nañ lu bari li ñu leen di wax. moo tax ñaareelu at mi sax moo ëpp ñu bokk moo ëpp ñu bokk waaye ñetteelu at bii nag moom dafa am leneen lu ci feeñ mooy dimension bi gën naa yaatu nit ñi gën nañoo maîtriser règle yi nga xam ne ci la ñuy attee moo taxit qualité bi gën naa bari bu nattee ren qualité bi ni mu demee ak at yi weesoon da nga xam ne qualité mbind mi kan gën naa bari moo tax sax nag teqalee gaa yi dana gën a jafe li dolli ko ci ci ci ci dimension boobu mooy ren la xalaatu la xalaatu def li ñuy wax régionalisation dikk ndax li ko loolu expérience boo ko indi ma wax at mu njëkk mi ak mu ñaareel mi dafa ñoo jàngal ne mbindum alxuraan ci réewum Sénégal dafa xamal ne culture réew mi gox bu nekk dafa mel ak culture ba nga xam ne moo gën a fës nga xam ne ci mooy feeñ ci làkk seen lakk mais mooy feeñ ci seen ci seen i seen col mooy feeñ seen aada hakaza it diine it dafa mel ne dafay am boobu cachet naka noonu it mbindum alxuraan it dafay dal di wuute ci dëkk dëkk parce ji li nga xam ne mooy région de Ndiarème di Touba ak li ko wër eh, ñoom ni ñu xamee alxuraan ak façon biñ koy bind ak ni ñu ko fonke eh, mbind mu rafet moomu boo demoon Fuuta alxuraan nga fa mokkal ma nga fa mbind nga fa waaye mbind moom wuuti nag mbind mi tey soo demoon it feneen fo mel ne que eh, Tamba Kédougou gox yooyu jëm Casamance it alxuraan dang ko fa fekk da nga fekk meen mbind moo xam ne mën naa wuute ak mbindum Bawal mii ak mbindum Fuuta loolu moo ñu xamal ne kon concours bi pour mu nekk national il faut ñu jox considération gox goxaan yi gox bu nekk moom na muy bind alxuraan ak la rafet ca moom ci mbind su boobaa lii moo indi ren ji ñu yóbbu ko Fuuta def benn concours régional ci Fuuta nga xam ne ñoom dañuy dañuy bind alxuraan ci seenu yi ñu wut ñoo xam ne ñu xam alxuraan lañu ñu xam yaqub alxuraan la ñu ko wattu lañu ñu formé ci ñoom comité de jury boo xam ne lañ fa bind ci mbindum Fuuta ñoo koy atte ci xam-xamu alxuraan waaye atte ko ci lan mooy mbind mu rafet ci Fuuta mhm. loolu dañ koo tàmbalee waaye li nga xam ne moom la kër gi bëgg mooy euh, alhamdulilah rabbil alamin mooy rek euh, mboolem région yi mhm. fenn fu fi nekk soobee yàlla mhm. buñ demee ba xam ne ñi yayoo na ñu jox leen seen concours bopp ci biir région ba su boobaa loolu dañ ci àgg kon ren ji euh, Fuuta loolu ma ci wax lu dolli ko la loo xam expérience mënu ko may alhamdulilah rabbil alamin te it macha allah ñoom seen i candidature demoon na lu toll ci. lu toll ci ay euh, six cent et quelque jëm cent mhm. ñi nga xam ne ay candidature lañu mhm. jigéen ñi macha allah ñu bari woon nañu lool dem nañu ba ay cent quatre vingt yu teg mhm. euh, loolu yëpp alhamdulilah ak ko la ci liggéey bi nga xam ne moom la C3S e, euh, def te mu yaatal mbindum alquran. jërëjëf Serigne wane ne rek li alquran di wax wa shahida shahidun min ahliha kenn ku ci ne boo koy laaj laaj ko ci domaine am nekk di ko yëngu ci la lay mën a waxee lu mu xam sëñ Moustapha Diop ñu ngi lay sant bu baax ci leeral yu am solo yaakaar naa leer na nañ ci ñuy topp euh, chaîne YouTube yaatal mbindum alxuraan ak euh, mbooleem activité yoo ñu ngi koy def mooy ñëw ci ki nga xam ne mooy soxna maam Awa soxna maam Awa ren am na participation bu significative boo xam ne am na ci jigéen ñi amul woon daaw ak daawaati géej donte ne jigéen ñaa ngi doon participer am na pàcc wu rëy wuñ leen ci amaloon waaye ren moom dafa am benn particularité boo xam ne am nañ ko ci ci concours bi ana ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis nga ci am. damay sama wax ci waxu Serigne Moustapha rek. Mhm. ndax booy tàmbali bu nekk rek xëy na dangay ah, da rek ngir def sa yéene rek waaye ci biir soobu gi tamit ci ngay dox ba gis ne faaw dafa am loo xam ne warut a mën a ñàkk nga dugal ko ci kon loolu moo tax tey suñ teewaay ci liggéey bi ni tey comme ni mu ko waxee bi ñu sosee concours bi dem ci yàgg ñu xool ne faaw dañu ko war a def ci région yi kenn ku nekk tamit ñu commencé kon ndànk ndànk bi région bu nekk tamit di def sa concours bopp génn saw nit andi ko ci national lool tam lañ xalaat ne kon jigéen ñi kat dañ leen cee war a boole boole boo xam ne dina am solo tax ñu gën cee góor góorgóorlu encouragé leen ci ndax soo xoolee euh, concours bu njëkk ba euh, ñetti nit ñoo ci bokkoon ci ay jigéen ñaar ñi poroxaan lañ jóge woon kenn ki xam naa tamit euh, sorewul noonu waaye ba ñuy participer tamit ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak ñoom dañ leen cee sonal ngir ñu participer waaye ñemewuñu woon ñu ñëw bii weesu di ñaareelu édition bi far sax lañ amoon amuñu ko kenn moo participer ci la lay sëriñ xam ne nag ak ñi mu àndal ñu koy jàppale ak ñi nga xamante ne ñooy commission scientifique bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñooy doxal mbir mi xam ne buñ leen bàyyee noonu rek dootuñu bokkati ñu ne nañ leen beral seen concours bopp ndax loolu tamit day dellu ci cosaan rek ndax dama leen wax ne leen alxuraan ji ci Sénégal gii tàmbali concours yi jigéen ñi daawuñu ci am dara waaye bi ñu commencé def concours yi rek euh, kenn ku ne yaa ngi góorgóorluwaat defaraat sam njàng ba tey jii daanaka concours boo dem bu jigéen jiituwul tam day topp ci ka jiitu kon dafa mel ne loolu mi ngi feeñ si ci concours mbind bi nga xam ne Euh, cëral nañ ci jigéen ñi bi yoon ndax ren bu ñu xoolee nii tey bu ñu jógee ci saal bi xool euh, département ba xool ñaata jigéen ñoo participé am nañ juróom fukki jigéen yu manqué benn maanaam 49 ay jigéen ñoo xam ne participé nañ te wax dëgg yàlla tamit lañu defee tamit mbind mu am solo la mu nga xam ne ah wax dëgg yàlla ku ko encouragé dina dem te loolu bu ñu ko daan boole góor ñi dañuy dem ba war a euh, dajeeg ñoom rek faw dañuy am gàllankoor ndax mbind ci jigéen taxut mu bari fi donte nag am na fi sax nag ndax euh, dañ koy wax di ko waxaat euh, soxna may mëntu alkubra mu Serigne Touba ak ñeneen ak waa këram ñoom ñëpp ci bari bind nañ ay kaamil bàyyi fi kon am na fi waaye nag ni mu ni ni mu baree ci góor ñi bariwu ko ci jigéen ñi te li ko waral mooy ci bu njëkkoon góor ñi ñoo doon dem ci daara jigéen ñi bariwuñ ci daara ba tey ñi nga xam ne ñoo amoon ay daara rek ci cosaan ci seen kër ñoo daan jàng te seen jàng sax daawul àgg fenn fi kon benn ñaareel ba mooy euh, coono bi góor daan def laxas dem jàngi feneen ba nekk fa ay at yu bëree bari jàng fa beq fa bind fa kaamil loolu jigéen ñi amuñu woon boobu moyen ah kon suñu demee ba mooy yi xaw a am ba jigéen ñëpp sóobu ci école yi di jàng alxuraan ci daara yi ah bay rawante ak jigéen ñi góor ñi di leen raw kon defe naa ne buñ demee ci mbind bi tamit war loola war naa mën a nekk moo tax ñu wax ne nag kon nañ ci beral jigéen ñi seen part bopp loolu nag moo ñu ci indi ñun ñi tamit mu doon lu am solo ndax bu ñu ko defoon tamit ah te dugaluñu ci ñun duñu xam lan moo xew waaye bi ñu ko defee rek lañ ñu woo wax ne dañ leen defal benn commission scienti boo xam ne day day day day tafu ci commission scientifique bi waaye ay jigéen la ñuy doon ñu tànn ma man mii soxna Mariama Jaxate ak soxna Fambay Ñang ak soxna Jóob muy ñun ñeent ñi nga xam ne dañ koo tàmbali rek waaye du yem foofu ñu daal di nekkoon kat léegi nañ nañ nañ daal di gaaw ndax mbir mi comme am na nii euh, te xamoon nañ ne néewoon nañ ci concours bi nañ daal def ay tournée ci au niveau national jéem a dem ci daara yi waxtaan ak jigéen ñi luñ fa fekk ci mbind ñu ñu ñu ñu wax leen ne nañ déposé buñ fa fekk mbind tam ñu ne leen kat am na lu xew mooy léegi euh, concours mbind dafa am te dañ caa am seen part bopp ñu def tournée bi jóge jóge xaan ñëw. def tuur Kaolack euh, ñëw euh, Diourbel def tuur bi ñëw ba Mbacké ba Touba waroon tam euh, àgg ci fépp ci senegal waaw ban nar ñoon bàyyi benn daara surtout daara yi nga xam ne jaare cosaan lañ yàgg nañ te lu bon bon dañ fa fekk ñoo xam doon nañ bind wala bindoon nañ ay kaamil sax doon te sëy nañ ñu ngi seen kër léegi bi ñu ko commencé nag ci lañ gis ne résultat bi ñi tey ñeen juróom fukk yi manqué benn ci lañ ko amee waaw loolu nag mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne moo am solo li ci des nag mooy Euh, wax nañ ko waxaat ko mooy mbind mi duñ ne rek euh, jàngkat yi ñoo mënut bind déedéet jàngalekat yi ñoo war a jàngal jàngkat yi ñu mën a bind waaw ki nga jàngal alxuraan ba mu mokkal ko saa su ko bindul rek da koy gaaw a fàtte te mokkal ga du sax kon waxuma la jigéen ñi sax waaye góor ñi sax war nañ cee gën a góorgóorlu surtout jamono yi nga xam ne alxuraan ñi koy mokkal bari nañ lool waaye itam fëtt bari na lool euh, kon jigéen naka jekk ci ci lislaam ci cosaan ci lislaam ba mu soog ñëw moo ko gàttandu woon kaamil bi ñu ko bindee ñu ko dénk jigéen la woon soxna sa moo ko yore woon Aïcha radiallahu anha euh, euh, moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom gis ngeen ko na mu na mu ci diina ji ngay dox di dox ba agsi ci suñu kër yi tey ci senegal nga gis kër goo ci dem gu nekk jigéen ña ña ngay watta alxuraan di ko bind di ko mokkal kon loolu tam dafa demoon ba nga xam ne dem ne ba bëgg a réer ñu bëgg yam ci mokkal gi rek bàyyi mbind mi te bind mi doon na loo nga xam ne mooy saxal mokkal gi moo koy téye waaw ndax bind jàng alxuraan ba mokkal ko te buñ la bindaloo sa tur sax doo ko mën a bind buñ la bindaloo fatiha bu doo ko mën a bind ba mu àgg loolu tam doo xam mokkal lu mu doon te gaawaa na rek saasi rek daal di koy mën a fëtt moo tax mbind mi moom dafa ànd ak alxuraan ji ndax suñ ko bindul woon tey kon duñ ko fekk ba di ko jàng kon dafa am ñu ko bindoon rek bàyyil ni ko fi ba mu agsi suñu loxo kon nun tam war nañ cee def participation boo xam bu am solo la ba ëllëg bi ñu fekkaat ko fi rawatina jigéen ñi nag jërëjëf soxna maam Awa euh, waxtaan wi leer na leeral nga point yu bare bare yoo xam ne bu ci nekk rek motoon naa taxaw muy mbind arab yi dañuy wax ne maa kutiba xarra wa maa xudira farra li nga bind moo fi des sëriñ Moustapha may ñëw ak yow ci ñaareelu tomb bi ku wax konkuur wax critère critères yi yan critère ngeen di tànnee ñi mën a bind maanaam fan ngeen di basé wu ba ne kii mën na bind kii mënta bind jërëjëf euh, concours bi du konkuur bind alxuraan kese ndax candidat bi lu mën a mën a bind te wattuwul alxuraan mënu cee bokk concours la boo xam dafa yóbbaale ñetti mbir ci alxuraan karim ñetti mbir yooyu sax moo fi bàyyi téere bi toujours mooy mokkal ko wan ko mën koo bind ci rasmul osmaan mooy mbindum cosaan bi nga ci moom lañ koy askane bi des moom mooy man koo bind mbind moo xam ne mooy mbindum dëkk bi mbindum réew mi mbindum rafet kon fokk mu mokkal fokk mën a bopp alxuraan fokkit mu mën koo bind concours bi ki ciy dikk ma dikk leeral loolu ki ci dikk bëgg cee bokk bisu concours bi dañ ko jox rek benn këyit bu weex ak ay daa jox ko benn enveloppe mu teppi ko fekk ci bopp aaya bopp robo wala bopp sumun wala bopp xisib wala bopp leneen ñu ne ko bindal robo tàmbale ci bopp aaya ji nga bind robo du xool téere du xool menn mbind xanaa ci boppam li mu mokkal ci boppam moom lay bind ba bind rubu ci alxuraan karim yemul ci bind rubu waaye na soqi na ko sadda na ko matt na ko aaya te it li er, er, mbindum Ousmane mi di sàkku ci ay règlement yëpp na sàmmonteeg moom loolu yi ci boppam la koy jëlee mu def loolu wañ ko it bind ci mbindum réew mi mu ko bind mbindum arab mbindum réew mi mbind mi nga xam moom la ñuy wax ne moo dëkk ci réew mi ci la koy bind ñetti fànn yooyu ñuy sàkku ci moom ngir mën a bokk ci konkur bi su noppee ci lañu koy xayma nattukaay yi ñu tër nee naa la konkur bi ci atam mu njëkk ah, dafa doon samp eh, ay keno di rëdd ay regl def ay texte ci la fente ay nattukaay yoo xam ne ci la natt concours bi nu alxuraan nattukaay yooyu ci ñetti fànn yi la aju dafa aju ci mokkalu eh, candidat bi li mu bind ba noppi daañu ko xayma mokkal gi am na ay ay point yoo xam ne moom la ñu génne masalan yokk aaya wàññi aaya maam jël maam yokk aw xaraf wàññi aw xaraf soppi ak maska soppi soppi soppi eh, yooyu fi ne ci mokkal gi lañ ko génne lenn lu ci nekk ay point lañ ko ci may su loolu weesoo ñun xoolaat ko it natt ko ci wàllu mbindum Ousmane mi ndax ay règlement la yu ñu xam yu ne ci téere yi mag ñi xam ko daan ko bindee ci la ba ci sax lu war a xonq lu war a vert lu war a jaune aaya mbuure taaralaay yëpp dañ ko da koy sàmm ci moom ñu natt ko it ci wet googu te lan lu ci nekk it ay point la lañ ko ci may doog a ñëw nag mbind mu rafet ñu sàmm ko moom it ay tënk yoo xam ne ci la ñu natte mbind mu rafet ci réew moom it ay point lañ ko ci may su boobaa wetu ko alxur ak ko mokkal gi am na ci fanweeri point moom da ci war a am waaye nag lu mu ci lu mu ci lu ci manqué ñu wàññi ko ci fanweeri wetu mbindum os sidna Osmaan yi moom it am na ci fanweeri point mbindum rafet mi ci réew mi am na ci ñeent fukki point boo ko boolee muy téeméeri point kon nattukaay bi ñett ñeenti ñetti wàll yooyu yëpp la jël di ko seeta ak bi ba ba noppee mën a xam ana téeméer yi ñu koy laaj lu mu ci am ci lañu mën a it sukkandiku ba xam ana kan moo jël ak ku jël deux ak ku jël trois ak ku jël leneen <laughs> waaw. am na solo waaye dama ci toftal beneen laaj rek Cheikh Moustapha daara yaa ngi bari ci réew mi ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi koy mokkal naam donte ne loolu kenn du ko exclure ndax lu am solo la waaye ku xool ni fi daara yi toll tey xam ne daara yu ci ëpp mokkal lañ gën a yitte woo ko bind absence su bind ci daara yi lan nga jàpp ne moo ko mën a indiwaat. Euh, xam nga bind bokkut ak mokkal. mokkal moo gën a gaaw bind mën a mokkal moo gën a gaaw mën a bind li jàng téere bi ci daara ja mokkal ko ci at yu néew am na nu muy demee doo ci mën a mën a bind par exemple jàng ñaari at mokkal ko ñetti at mokkal ko mënu kenn mënu cee bind mbind mu ñu yéem mbooleem bindkat yu mag yi ñu yéem ci réew mi expérience la bu yàgg bu ñu def ci daara ji kon léegi tari bu gaaw bi tax na mbind ci boppam dootu fa nekk xale bi day mën a rëdd dara mais mën a bind alxuraan moom ci façon bii ñu ko doon defee ci kaamil kooku moom euh, mokkal gaaw gi tax na dootu dootu mën am. ñaar bi moo it jamono euh, dafa indi euh, ay ay ay soppi ci lépp ci la amee ci daara par exemple am na daara yoo xam tey boo fa demee doo fekk xali mag daa doo fekk xali mag daa doo fekk sax alluwa te xam nga ne mbindum réew mi mbind mu rafet ñu ngi ko daan mën a ci xali mag daa ak alluwa ñaar bi des mooy maanaam. dañ daan wattu alxuraan di ko beqi bay bind kaamil tey jii beqeeg bind kaamil dafa am lu ko xaw a wóotu mooy tajwid xale yi léegi jàng alxuraan di ko tajwid loolu mu nekk ak jublu goo xam ne bañ ko xasee ba am eh, diggante beqi ak bind kaamil booleetuñ ko te ku beqiwul bindu kaamil doo man a bind alxuraan karim kon daal li ko fi jëlee moom yooyu la waaye nag li ko fii delloo si kon moom mooy delloo si waat loolu benn fokk ñu xam ne bind ak jàng dañuy ànd bind ak jàng nga xam ne léegi xale bi dañ ko war a jàngal alxuraan mais aussi former ko ci ngir mu mën a bind waaw te it ñu fexe dellu si beqi alxuraan parce que xam yàqu alxuraan rasmul osmaan yi ak lim làmboo lépp ak dapt kooku nag il faut nga jaar ci beqi alxuraan karim beqi alxuraan karim moo la yóbbu ci nga mën a mën a bind kaamil te it boobu qualification mooy tax nag nga mën a qualifié ci concours bi mel ni kon daal fokk daal ñu li ko ma dellu si mooy ñu jugaat am programme mu bind ci daara ji programme boo xam ne ni ñu programme wattu gi ak tëjit bi jox ko yitte ba mu agsi fii mu agsi tey même ci niveau international tey fokkaat fokk ñu amee ay programme mu bind alxuraan mbind moo xam ne it euh, euh, bu ñu organiser la euh, malgré temps bu gaaw bi xale bi def ci daara ji teewul nag fokk rek ñu fexe daal ba xale yi ñoom ñu am ñoom programme yoo xam ne fokk daal ñu mën a bind xam maa nag temps bi moom ci lay bokk moom ñu am temps ba doy parce que mooy tax ni ma ko waxee mooy tax nga mën faa nekk ba mokkal ba mën a beq ba mën bind kaamil waa kay bismillah anta bi ni'mati rabbika bi majnun